xam-xam yi déglu comprendre. Hmm. man voilà mon analyse c'est-à-dire que yeewi askan wi moo toll foo xamantene ken wolatul ken. Boy booy wax ak kenn sax ci yeewi askan wi xamal li ngay wax parce que à tout moment mën na dem feto fenn dina jiw de mës na ma wax li. ce qu'on a vu avec Barthélémy Diaz ak wa taxaw Sénégal ak discours lu ñu doon sekkante ñoom ñaar ci en privé Barthélémy xeyna ben jour diko ko même si Ousmane Sonko n'a jamais révélé ci Barthélemy Diaz ben affaire. mais Barthélemy mo taxaw di wax di wax di wax di wax di wax li mu Ousmane Sonko foogul peut-être xëy na bés dina ñëw ba Barthélemy Diaz taxaw ci benen média di wax lo xamante mako mom moom nañu ko ñun ñaar ci fo xamantene caméra nekku wala ñun ñaar kese ño fa nekkoon. Hmm. te Barthélemy Diaz mu ngi koy wax ñëpp dégg ko moo tax bi wax la mais señ bi lu mu wax. dafa ne fekk us fekkee Ousmane Sonko wax na ma li moo wax rawo ba mais sëriñ bi waxul lu ñu waxante ak hmm. Ousmane Sonko. Hmm. est-ce que wax na ko voilà. sëñ bi waxul waxtaan bu tukkee si diggante ñoom ñaari. Hmm. peut-être xëy naa ñoom ñaari dañoo joxante euh, confiance mutuelle la respecté réciproque ñoom ñaari moo tax waaye yi askan wi war nañu taxaw xool seen seen seen seen tànk. il n'y a plus cette confiance-là. depuis. Mais est-ce que mieux vaut une dislocation au sein de cette coalition Parce que mhm. un sens quand même. ils ont commis tellement d'erreurs erreurs. erreurs erreurs di di di di Okay. Ils ont commis tellement d'erreurs, Yehui Askanui. Mm. Ils ont commis tellement d'erreurs. C'est clair. Maintenant, vous faites que vous ande ci ñaari élection ngeen ne élection yi da ngeen maintenant bu fekkee dem ngeen ci élection présidentielle ku am ambition dem bu ñu demee ba deuxième tour on peut se retrouver du loolu la ñu maintenant bu fekkee ñoom ñëw nañu ci lii élection xewagul sax ñu commencé am ay jafe-jafe war nañu xoolaat seen bopp

dégg li ma la wax ma ne na ko journaliste interprété la weddi. ah ok d' accord d' accord comprendre naa. Mm. man dama foog ne da nga ne lu mu waxoon ni Sonko mun naa ko yóbbaale loolu la weddi ci lendemain bi. xamuñu code bu mu donc journaliste yi. Euh, euh, na ko journaliste yi waxee c'est que ni euh, sëñ bi dafa bëgg a s'offrir à l'électorat bu Ousmane Sonko que ni mën naa ko yóbbaale. c' que Mansour Diop loolu la génn weddi. c' que Mansour Diop c' est un homme de média. Mm. il a très bien fait de dire sëñ bi kaay leeral parce que kilifa bu waxee kilifa mën naa wax benn wax ñu koy analyser ñooy waxloo kilifa bi lu mu waxul angle de traitement voilà moo tax mu ne ko kaay leeral li nga wax su ne Sonko mën naa ko yóbbaale ils sont dans une coalition non hmm. Yewwi Askan Wi ñaata yoon la ñu ànd liggéey voilà ñu ba ñuy ne sax Yewwi Askan Wi deux partis ñoo ko yor mooy pire ak pastef du loolu lañ ñu bëri analyse boobu lañ gis. Mm. moo tax sëñ bi ne la Sonko faagaagal buñ ko bëgg a faagaagal ni ni que dañ ko bëgg éliminer ci élection yi man mën naa ko yóbbaale. man mën ko yóbbaale boobu man benn interprétation laa fa gis ni mooy maanaam que sëñ bi mën créer une coalition avec Ousmane Sonko donte tas nañu pastef mais pastef ba tey mën na bokk ci élection mooy maanaam que man pire man Serigne Moustapha sibi mom pire mën naa coaliser ak Pastef ñu am coalition 2024 ñu dem ci élection man kaddu yoy la xam ni que peut-être c'est bi loolu la bëggoon wax ci sens bobu ni Sonko man mën naa ko yobale ba léegi deewagul munu kenn mënul dara ci moom même boo di attends Pastef n'a jamais euh, euh, munsul dem élection en tant que parti même en 2019 élection présidentielle en 2019 Pastef dafa demoon ci coalition hein Jotna? ok coalition jotna la passe que élection bobu hmm. motam ne la motam tax ne la mom Sonko ay Pastef il faut que il faut que nit ñi tamit comprendre euh, ñi taxaw di interpréter kaddu si il faut que ñu comprendre ni que mom motam mu andi wat leral ci gannaaw suba bi ne du question récupération politique la def kaddu yi du allant dans ce sens du question électorale la bëggoon uti ci ci ci ci Pastef déedéet dafa ne bon tax mu ne la moom Sonko su ko soxlawul moom du ko soxla tu sais pourquoi hmm. un parti bien structuré et autonome loolu la war a wax mais man bokkuma ci ay parti classique ñu mel ni PS ñu mel ni AFP di naan ji tax ànd ñoo ñun Macky Sall ku ñu choisir <laughs> ñun moom la ñuy choisir un parti structuré ne parle pas comme ça bu que da nga bëgg euh, continuer di di di pur bugul le parti pur bugul de donte mu ci askan mais bugul c'est un parti vivant ok c'est clair. un parti vivant. donné man diw momay diw man ci diw pour man vous continuer di am ay électorat hmm. Moustapha Sy man électorat Sonko suma soxlawul man soxla na soxlaw mu ko voilà un parti structuré et autonome bu gëm boppam nii la mën a wax bu fekkee ñoom il envisage une coalition entre les deux partis mais da ngay taxaw ni nit ñi kii su ma man soxlaw ma c'est normal. alors attends aussi ben parti aussi. c'est pas un parti. Euh, bu bu ay di taxaw di daw. parti classique bo xamante yow normalement APR mo wara comment dire wenge ci yow yow ngay taxaw di noyé wu un parti bu melni ni PS. du noyé wu ci si ci bir APR. di nan man président le président Macky Sall. Hmm. président. coalition Benno Bokk yakar la. coalition APR la. donc mom moy choisir ku bokk ci mom APR est-ce que ah. la preuve il a choisi un gars bon xamante ne ku bu bokk ci coalition te mu mu mu bokk ci parti PS. mais je suis un amul donc ngeen taxaw di naan may ma ma daane bu ngay taxaw di naan ñun le président lu mu choisir <laughs> ci ci Benno Bokk Yaakaar ñu ah, moom la top. topp nga topp un parti depuis pendant douze ans ngay daw si ginnaawam. alors mais je suis un passage qui a été frappant. Mm-hmm. Euh, le pourquoi euh, ki nga xam que moo di Sëñ a insisté si ki nga xam ne que moo Cheikh Bara incidence euh, instance loolu trop trop trop waaye euh, japp na ni aussi euh, da fay partager benn euh, complicité ak ki nga xam ne moo di général des mourides di seigne Bassi sëñ Bassirou Mountakha Mbacké exactement alors là aussi ban jang nga ci am bu fait non mais non mais xama seigne sëñ euh, sama seigne bi mang koy nuyu de passage ah. xam nga sëñ Baara Ndiaye ku yarou la. Mm. ku am kilifa la ku xam teggin la. Seigne Fall euh, sëñ Fallou Bara Baara kat diine la. ku yor ay talibé comme Seigne Moustapha si nu mu yoree taalibe. Hmm. foog ngeen comprendre wax ji ils sont comme si des collègues. yow tay mak ak yow bu ñu ay enseignants ñuy servir la nation yow bo amé jafé jafé man dama lay soutenir en tant que collègue mën naa ko bañ a def mais pour valoriser la la le corps. mais man dinaa ne maay nuyu sama collègue enseignant di boante mu ngi ci ay jafe-jafe ñu ngi sakku yoon. di tegi ko ak ak ñi jàpp ni affaire ay jaxase la. non du ay non non du non non du du jaxase. Baara jàngalekat diina la. ok c'est clair. dongo daara la jàngalekat diina la mu yor ay daaraam yor daaraam comme sëriñ euh, euh, Moustapha Sy lu mu yoree daaraam pire. il faut que ngeen comprendre donc jàng xam nga jàngalekat yi diine yi ils sont solidaires hmm. il y une association bu ci jàngalekat yi daara yi xam nga ci au courant ci association boobu dañoo yor seen association bopp donc dañoo jàpp ni moom seen Moustapha Sy bu waxee ci ay kaddu yu rafet ci ci digganteem ak sëñ Bara Ndiaye parce que daf ko jàppee ni que un collègue ku yor daaraam di jàngale donc bépp kuy jàngalekat daara bu amee jafe-jafe ñëpp ñoo ko war a soutenir bépp jàngalekat daara ku yor daaraam dafa war a taxaw di soutenir kooku te Serigne Bara aussi murid la hmm. dafa am fu mu bokk hmm. dafa am ay kilifa te moom Moustapha Sy day waxtaan ak kilifa yooyu il faut pas il faut pas aussi ngeen fàtte loolu bu fekkee ñoom kilifa yooyu chaque fois dañuy wax lu baax si moom ñu am am seen benn taalibe bu am jafe-jafe moom foog mu indi ay kaddu

mu nekk loo xam ne itam jur na ak ku si nekk rek ak nako ko ak nako analyser exactement alors le moment que peut être président Macky Sall di dem le moment euh, euh, que peut être lu bari japp ni ñom ñi ngi souhaité li xam rek moo di peut être le départ du président Macky Sall euh suñu kilifa diine ñom batay euh, ñi ngi am ben cofeel jëm ci ki nga xam rek moo di le président.